ci kër tey bëgg sëy ba di neex nay muñ te sax ci ndigal tey tontu tontu rasulillah muhammad ibni abdillah wa ala wa sahbihi ajmain ñu yeesalaat suñu njébbal bu baax a baax ci suñu yaakaar ji tey ak ëllëg Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul di nuyu di ziar bu baax a baax Sëriñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal bu baax Mbàkke mu yàgg fi lool te ànd ak wet noonu lañ ziare itam sëriñ am di moom sëñ Modou Mbène di ko ñaanal bu baax faal yaaram mu yàgg fi lool te ànd ak wér nuyu leen ziar leen yéen mbokk téléspectateurs yi waaye yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo seen euh, émission bii di Linguère mi am alxames bu jot bu waxtu wi jotee euh, jàpp 17 heures incha allah ñu ciy fas yéene ànd ak sama Linguère yi ñaawal yi ni ma leen koy waxee chaque jour ndax Linguère moom bu ñu koy waxtaanee rek mooy lépp loo xamante ni amal na askan wi moom lañ fiy waxtaane waaye itam duma ci wéet benn yoon ndax euh, sama lingeer yi laa ci àndal su nga xam ne ni euh, lingeer moom waxtu wi dañ cee ànd ak suñu partenaire boo xam ne macha allah moom moom euh, moo ñu ciy gunge ci jamono yi ndax li ñuy waxtaane wax naa leen ko ne duñ ci jël benn risque di ci wax loo xamante ni xëy na suñu xam taxul mu màcc ci lool lool jëm ci moo tax tey tamit dañ ciy ànd ak sëñ Lamine Bara Fall moom lañ fas yéene àndal ci thème bii nga xamante ni moom lañ fas yéene waxtaanewaat te xam naa ni tam li ma wax rek suñu xam-xam dina ci lottu lool pour ñu mën cee débat lu bëree bëri waaye liñ naan euh, tungu ne lu teew ñuy ñuy ñuy nattaat ndax ki nga xamante ni bi macha allah euh, xam-xamam màcc na ci loolu tam ciy jëflanteeg ay nit ñu ciy gis taw tawféex bu baax a baax moo tax euh, Linguère bu amee rek loo xamante ni dañ koo fas yéene waxtaan muy jëm nag ci ut loo xamante ni sax na dafay doon solution nag dañ leen andi solution tey muy sëñ Lamine Bara Fall sëñ Lamine ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay te di la wax dalal ak jàmm ci suñu émission Linguère bi jërëjëf jërëjëf auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim jërëjëfe sëriñ tubaa jaraw la kamaam cheikh ibrahima fallant jërëjëf soxna jaara jërëjëf sama jigéen ñi fi toog ci plateau bi yëpp di ko commencé ci soxna Mareetu Kebe Ah, sunu bàjjan soxna Cuun mhm. ak yow soxna Maam Bousso mhm. ak soxna Ndey Jóob mhm. yéen ñëpp maa ngi leen di jox seen cër di leen jox seen wàccuwaay bu baax ci kàttan yàlla ak baaxam a jërëjëf jërëjëf naka noonu ci laay nuyoo waale sénégalais yëpp rek yi ñuy déglu ak yi ñuy seetaan ndax émission bi moom dafa nekk émission nga xam te ni waxtu bi bu jotee ñu bëri dañuy toog di ko déglu ak di ko seetaan kon ñoom ñëpp képp ku nekk rek fa nga nekk ci sa saal ak fa nga nekk di ko seetaan ñu ngi lay jox sa cër di la jox sa wàccuwaay di la jox cër ci réew mi di ko ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal sëñ Amdi Moodu Medda faal di ko ñaanal suñu bunt ci Cheikh Ibra muy sëriñ Cheikh Bintu faal bu sëriñ Moodu Abdoulaye Fall Ndar mhm. jërë ngeen jëf kon nuyu naa ñëpp rek macha mhm. allah mu ngi noonu sëñ la Labe ñu delloo la nuyoo bi bu baax a baax tubaarkàlla macha allah tey nag li ñu fas waxtaan waxtaane xam nga euh, alxames bee passé yëkkati woon nañ fi li nga xamante ni moom moo di euh, takk xala euh, yaakaar naa ni ñu bëri jëlee nañ ci xam-xam boo xamante ne xamuñu ko ci woon waaye tey itam ñu ngi fas yéene yëkkati li nga xamante ni xëy na lëmbee na kër yu bëree bëree bari xëy na itam tas na kër yu bëree bëri am na tamit ñoo xamante ni waxtu wi ñu toog di wax ak yéen xëy na seen xol Euh, xat na xat goo xamante ne wala ñu ngi dund naqar boo xam ne mënuñu koo wax ndax li nga xamante ni nattu la boo xam ne suñu boroom teg na leen ko muy ñàkk am doom ndax bu ñu waxee ñàkk am doom nag dafay dem si ñaari côté yëpp sëñ Lamine comme li may wax des fois dina dal ku góor ki des fois itam dina dal ki nga xamante ni moom moo di ku ku jigéen ji waaye ci loolu lépp itam xam naa ne dañuy gën a dugg ci waxtaan woowu ngir mën cee am euh, xalaat bu baax a baax ginnaaw boo yëkkatee ba noppi na xam na am na ay éléments yoo xamante ne war nañ ko euh, taataan régie bu dee jàppandi na rek xam naa ni mën nañoo njëkk a dem teewlu benn élément bi déglu askan wi ñoom itam li nga xamante ni bi ñoom wax nañ ko ci ñàkk am doom boobu noonu ñu déglu leen ci doog mën a ñëw ànd ak sëñ Lamine wooye li nga xamante ni moom moo di waxtaan bi incha allah aca mu ngi noonu mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd ngeen ànd ak ñun ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen daal di jaajëfal tey nag gis ngeen dañoo def déplacement bu seenee ànd ay question yu ama am solo yoo xamante ni question yoo xamante ni dina leen yitteel ndax ku nekk xam na ne jamono ji fi mu toll couple yaa ngi fi xale yu ndaw di sëy am ay vingt cinq ans trente ans mënuñoo fexe ba am doom ñu fas yéenee laajte tey lan moo waral loolu lan moo koy joxe ak lu koy indi incha allahu rabi topp leen bi rek dinañ leen wax ay leeral yu am solo sama maan bu baaxee rek ñu daal dem xooli ji sëñ bi ñu ngi lay la ziar. maa ngi lay fay soxna si. waaw avant tout doom moom mbirum yàlla la bu ko yàlla namee ci ñaar ñuy sëy day am mais deuxième cas bi mooy euh, gars yi foofu ñu xam ne foo bu bëri ci ndaw mun na la xañ nga bañ am doom muy ku góor ki muy ku jigéen ki de jour benn. lekk yi baaxatul te ñaar ñun xale yu góor yi xoolatuñ sunu état de santé te gis nga lii tax ngay produire doom ci góor dafa war am benn nombre bi nga xamante ne mooy li ñu naan spermatozoïde nombre boobu bu matul ci ku góor ki day doon problème pour mu am doom ku jigéen ki nag bu fekkee moom it bu titu njureelam dafa am problème loolu day am mais de nos jours muy ñu góor ñi ñu jigéen ñi caaxaan bi moo ñu sonal. imaginel nga toll 18 ans nga ne xale bu jigéen yàlla teg la natu nga biir. ngeen baal mo ci cadeau bi nga yak eumbu bi di nga bëgg amaat doom suñu borom xagn la ko. mais ñaar dafa dafa am ci société bi tay ci ci ñun jeunesse bi ñun goor ñi ñu suñu santé jigéen itam ñu seen santé. xam nga am goor góor yoo xam dañoo complexé goor mu na am yenn fièvre yi mu rus ko wax surtout ma fièvre sexe dafa li nga xamante tay fi Sénégal ñu bëri dañuy complexé wax ko da nga gis ñi nga dañuy am ay infection ci goor mais dañ ci rus a wax wala di rus a dem faju or que yow li ngay complexé mi ngi lay xañ sa ëllëg bu fekkee ni que tu te sens malade tu te sens impuissant demal nga faju garabu traditionnel yaa ngi fi yàlla waxul kenn dara mën nga nek jeune de 30 ans jusqu'à 40 ans yaangi ngi di faju mais à say 42 ans yalla mën na la may bant man problème bobu kassa la gis bu fekke feebar dafa am mom ci goor kek ci ku jigéen la majeure partie ñun goor ñi ñoy ñoy ñoy ñoy ñoy am complexe baña dem faju ate señ mi ñu ngi lay euh ma ngi lay fay soxna ci ma ngi lay ziaré bu baax euh, man daal sama xalaat bu gàtt la dama japp ne si ñom la quoi parce que légui ak méthode yi xew non dem di planning naan ay su ma duggee si si sëy du ma amagum doom léegi damay xool affaire yooyu man daal yooyu laa ko jàppee quoi euh, benn côté tam doom moom doom yàllaa koy maye tam quoi mais à nos jours la couple yu bëri surtout jeune couple yi ñoom en ñoom ñooy préféré bañ a teel a am doom si si mariage ñëw wérdu bu lee neex na euh, ñu mën fa am doom bu neexul nag ñu génnaan ndànk quoi c'est comme bu njëkk suñu yaay yi ak suñu suñu mag yi liñ doon xalaat si sëy fekk ko fa xale jigéen ñi léegi quoi. faju moom boo koy def yan ñaan ñëpp a war a dem xool yi euh, ndax yow da nga feebar wala ku jigéen nee na bu dee si yan ñaar am na ku si feebar mu dem faju ji loolu dara quoi nañu and ta yàlla tax bëggante te yàlla tax jàppante te yàlla tax quoi waaw man daal noonu laa ko gisee quoi. ah am na adduna léegi première bi ak bii nii bokkul mhm. xam nga fu ñuy sëy mën na faj yow mun bu ñuy sëy mm-hmm. waaw mun na am yërmande mu faj ci yow parce que mm-hmm. nit yi boo amee nit yi mm-hmm. fu ñuy sëy moo am bor moo am lépp waaye sa mbokk yi am na de waaye fu moo am lépp moo parce que doomu kenn du ko jënde waaw kay jigéen bu bu bu wérul jëkkëram mun na faj bu fekkee jëkkër amul dara mbokk yi mun na ko faj waaw mère bi nag soose la olof bi satul mais nee na booy say yéen ñaan ñëpp da ngeen a war faju nee bu fekkee amoo ku ji góor amul lum fajoo ku jigéen ki na ko ay mbokkam jàppale ngir jëkkëram mën a faju ndax nee na doom kenn du ko jënd mu wax am solo lan ngay conseil xale yi. am nga doomu aadama ñun ñëpp ñoom aadama la mhm. yow am na man amul kon ñoo bañ nga ñàkk kees man wala yow man am na yow amul mhm. da nga am yërmande pour yow su ma ko yoo ma ma bugg yow sol ko mooy adduna sutura kese mooy a boo ko suturee jeexi na boo sa affaire ju suturawul jeexul. ci côté yi góor ñi dafa am jeunes yoo xam ne bu ñu commencé nekk à bas âge day def na ko sudul noonu di nga dem bo boo nekkee mag soo amee sa jabar doo ko mënal dara. te en plus tamit am na ñoo xam ne dañuy jël ay produits yoo xam ne c'est inutile quoi léegi nag boo màggee ngay jël produits yooyu di jël produit yooyu bu yàggee boo amee soxna autant sa spermatozoïde yooyu waroon développé du mun a développé man su fekkee tamit am na beneen tamit loo xam ne c'est fréquent ndax góor day ay rawaan jigéen day am ay rawaan seeni rawaan mun naa bañ a bokk ba doom yi ngeen war a am du ngeen ko am Dakar jur mi day gën a wàññeeku ndax tey jot bi nga amoon pour sëy mënatoo ko am ndax da ngay xëy da liggéey bu dee ci village yi nag amuñu autant d' activité yoo xam ne dañ koy def tout le temps tout le temps bu dee Dakar da ngay xëy bala ngaa dugg sa kër mooy loolu te da ngay sonn kon doo am day dund soixante douze heures te raconte saa amulee rek collision du am te collision bu amul doom dafa mun a am léegi nag bu fekkee ne ku góor ki spermatozoïde bi moom fertilul mooy taxul ni mu war a def bala moo ku góor ki pour ku jigéen ki pour ñu tasante rek loolu day daal di dee ça veut dire doom bi du mun a fécondé quoi te mm. loolu lañ naan la fécondation ci France loolu du mun a am moo tax tey jii góor ñu bëri seen sport motocycliste yi ñoo yàq. papa ñu ngi ñoo ngi lay fay di la ci jàmm. waaw ah, loolu moom li ko waral mooy dégg nga jigéen ñi si boppam la dul sol tol bu yiw dañuy sol soog sol col yoo xam ne sol yu sexy la ba tey euh, ay seytaane wala ay. ay ay jinne wala ay rab lépp a ngi ci sunu biir te duñu gisante ak ñoom mën nañ la solu dugg la te doo ko yëg dégg nga war a nga romb góor mu di la xemmeem xam nga li ma la xamoo góor lu mu doon am déet loolu lépp mën na ko mën na koo waral jigéen dafa war a sol lu yiw que jigéen léppam awra la nit ci boppam dégg nga dafa war a di sa di sàmm boppam di sol col yiw mu jigéen nag surtout jigéen jigéen ñi léeg-léeg ñu romb la fii sol col boo xam ne yow mi lay koy xool sax da ngay tiit ndax nga naan lii xoom nu mu mën a génne kër ndeyam ak baayam képp koo xam ne kii da ngaa ne ciy caaxaan ba ëllëg di nga toog di mere ku deful dara aca mu ngi noonu loolu lañ leen indi loolu mbokk yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di a jaajëfal dégg ngeen bu baax li nga xamante ne moom la askan wi wax moom lii li suñu yaay waaye tamit ak yi nga xamante ne wax nañu ko mu nekk loo xamante ne kenn ku ci ne rek indi nga sa idée indi nga nga xamante ne moom nga yaakaar ni loolu moo waral li nga xamante ne mooy avortement yi bari yi nga xam moo am wala it ñàkk am doom yi nga xamante ne moom moo indi ci couple yi waaye nag du daal des dinañ leen bàyyi ki nga xamante ne mooy rek Serigne Lamine Bara Fall incha allahu rabbi di ay faram-fàcc ña ngi ko sekkal jërë ngeen jëf mi ngi noonu ñu jaajëfal ko bu baax a baax ci euh, reportage boobu mu demoon euh, jëli tubaarkaala macha allah lépp rek ngir andi li nga xamante ne bii moom la askan wi nekk ci biti ñoom itamit mën a ànd ak ñun émission bi teewlu ko euh, li ñu wax ñoom tam seen ay xalaat sëñ Lamine buñ dégloo reportage bi yaakaar naa ni wax ci moom bari na lool ku ci nekk andi nga sa sa xalaatu bopp ku ci ne tamit andi nga sa xam-xamu bopp te xam naa ni dañ leen koy nangul bu baax a baax ndax liñ fi wax yëpp mën naa ni benn boo ci jël wala ñaar boo ci jël jël xam naa ni euh, andi na li nga xamante ni moom lañ euh, fas yéene waxtaane mhm. muy euh, ñàkk am doom bi faral di am ci ci ci couple yi mhm. léegi li bëggoon njëkk a xam sëñ Lamine mooy lan moo koy faral di andi man mhm. loolu laay bëgg wax lan mooy cause bi nga xamante ni moom mooy faral di andi loolu ñàkk am doom gi jërëjëf jërëjëf soxna maam maam Bousso maam Diarra ñu ngi lay saaraat bu baax ndax thème bi ngeen indi tey dafa nekk thème bi nga xam ni thème bu am solo la ku ci nekk ci ñun rek laal na la bu la laalul directement itam laal na la mhm. indirectement muy sa sœur mhm. wala muy sa frère mhm. wala muy sa jabaru nangam wala sa proche kon kenn ku ci nekk rek dal la la te ku wax kër wax famille wax société wax jigéen te jigéen ñi ñoom ñoo gën a nekk victime ci problème bi ñoom ñoo ci gën a sonn ndax ñoom ñooy am ay goro jigéen ay am njëkke jigéen ay am peccorgo te jigéen lépp lu mu ëppalee morom moom wala mu tane ko morom moom rek dana ko wax wala dana ko wan wala dana ko xase. dëgg la la majorité ñi nga xamante ne ñoom ñooy am problème mu doom yi. Mhm. mooy couple bi nga xamante ne dafa am infertilité de couples. Mhm. mooy couple bi nga xam ne dañuy sëy. Mhm. te tëw am doom. ku jigéen ki moom la ñuy xas. dëgg tout moment dëgg la. donte ku góor ki sax day am problème mais jigéen bi la ñuy xas mhm. majorité mhm. kon moo tax lii jigéen ñi nekk ci victime mhm. di ci jaare rek di ma masaw bépp jigéen bi nga xamante ni yaa ngi ci sëy lu yàgg te yàlla mayu la bant te xam ne yàlla rek mooy maye te yàlla mooy nattu yenn yi nag nattu yu feebar la am ñoo xam te ni seen cause bi comme ni ma ko demandé feebar la nattu yàlla na xam nañu nattu yàlla am na waaye ñi ci ëpp ci ñoom quatre-vingt-dix-neuf pour cent ci ñoom feebar la feebar la. yàlla nag am na jigéen ñi mu sàkk ba mu leen di bind dafa wax ni ñoom duñu mës a am doom ci àddina. Mm-hmm. du feebar du dara. Mm-hmm. mais ñooñu un pour cent la te lu jafe xam la. Mm-hmm. te bala ñu koy xam daañu wër fépp. ba doog am xam ni yàlla moo natt ci ñoom ni mënuñoo am doom kon ñu ci li ñu war waxtaanee thème bi mooy tey. jigéen bi nga xam ne mi ngi sëy. wala couple bi nga xamante ni mi ngi sëy. lu yàgg te taw a am doom. ñi ci ëpp ci ñoom ci li ngeen war a xam nag ak li ñu nar a waxtaanee nag mooy feebar yi. ndax quatre vingt dix pour cent ci cas yi ay nattu yàlla ay feebar la waaye nag du ñu xam cause yi du xam conséquence bi du ñu xam lan la mhm. loolu nag la ñu war a teg tey leeral lan moo waral tey jigéen di sëy mhm. couple di sëy muy mhm. góor ak jigéen te ñu tëw am doom lépp lu ngeen ma ci laaj dinaa ci indi leeral incha allah ci loolu lañ lañ bëgg a kay tënk waxtaan mi ngi doon soxna Mareetu sëñ Lamine Bara ngi noonu ñuy waxtaane li nga xamante ne bii moom moo di ñàkk am doom gi am ci ñaari waay dencante yi ndax eh, juñu na ko léegi bëri na loo xamante ne xëy na moom moo koy eh, faral di andi soxna Mariétou ni nga ko waxee rek tem bu am solo tem mhm. boo xam ne sëñ Lamine wax na ko léegi jigéen ñi la gën a laal suñu mhm. mbokk jigéen ñi parce que bu leen dalee benn dañuy dem ba société bi ñu nekk waxuma kër gi mais dootuñu bokk société bi mhm. dootuñu bëgg a wuy ji xew dootuñu bëgg a dem fenn bu ñuy wuy am na si ñoo xam ne chaque jour ngay wuy rek te yow mosoo am xew mosoo am lii dañuy dem ba dootuñu bokk dem ba stressé ba indil seen bopp beneen feebar boo xam ne ni mën na leen a gën a lor parce que jigéen ñi ñu ngi koy dund te am na si ñoo xam ne amuñu kuñ koy waxtaane amuñu fu ñu daw jëm kon lii da cee baax tegal leen koo xam ne bu ñu paree leer nañu war nañ faa mën a daw dem ci sutura. Mhm. waaye sañ la Lamine li ñuy laaj rek mooy parce que dafa laal góor laal jigéen. Mhm. Euh, euh, góor. Mhm. Euh, âge bi fan la toll pour war a mën a am doom ndax góor am na foo xam ne nii âge am fa parce que ñun jigéen dañ naan. fii bu defee nii dootul am doom. mais góor. fan la mën a toll at pour war a mën a am doom. waaw bu dee góor moom yàlla dogal na ci góor. tant que góor moom mi ngi am spermatozoïde mun na am doom loolu nag du déterminé wu ci âge kon góor ba dépassé téeméeri at xam nga téeméeri at moom benn góor dundatu ko jamono ji waaye góor ba ba muy dépassé téeméeri at tant que feebarul tant que feebarul feebar bi nga xamante ni muy feebaru tële wala feebaru yoom wala feebaru ndoxu sëyukaayam ndax góor ñi dañu am lu ñu naan seen ndoxu sëyukaay mooy spermatozoïde mhm. spermatozoïde dafa am ay qualité ak ay nombre yi ci war a am dafa am nombre bi nga xamante ni tey jii góor bu nekk ci goutte spermatozoïde am war na am minimum 17 millions de spermatozoïde xam ngeen taux boobu moo wax bëri na mm. maanaam benn goutte de sang bu nekk 17 millions de spermatozoïde moo ci war a nekk mm-hmm. kon ci léegi déggin lu bëri la mm-hmm. te benn goutte la kon sperme lu bëri la ci góor léegi nag góor ñu bëri nag seen problème dañuy am problème mu feebaru ndoxu sëyukaay bi ndoxu sëyukaay boobu nag dafay am feebar am na góor ñi nga xam te ne am nañu 15 ans mm-hmm. am nañu problème ndoxu sëyukaay am nañu am 30 ans am nañu problème ndoxu sëyukaay am na góor ñi xamante ni am nañu quatre-vingts ans. Mhm. ñoo gën a fertile ki xamante ni am na trente ans tey. Hmm. ndax am na mag ñi lu ñu daan dundee. Mhm. ci lekkin ci naan et tout. Mhm. mag ñu jëkk ñi dañu daan am lu ñu daan dundee. dañ daan dem ba quatre-vingts ans cent ans di ngénte. bëri na fi ay paa yoo xamante ni ñoo ngi am quatre-vingts ans ñoo ngi ngénte. te am na jeunes yi xamante ni vingt-cinq ans la ñu. amuñu ko tey ji bu ñu demee hôpital ñu defal leen ay rajo. defal leen ay analyse dañuy gis ni seen ndoxu suyukaay nekkul de très bonne qualité. bu ñu ko xoolee inférieur à quinze millions de spermatozoïdes la ñu am. Mhm. loolu moom la ñuy wax azoospermie. Mhm. xam naa dinaa ci gën a développé. Mhm. gën ci indi ay leeral ci li mu wax. kon ci âge bi ci góor amul amul amul amul. amul amul limite amul limite. ku ci nekk nag nii la yàlla bindee ndax nit ñi tollawuñu ay physionomie. nit ñi ñu ay anatomie. maanaam góor yàlla bu nekk ak ni la sunu borom sàkkee ak ni mu la bindee. ak natt yu mu la teg ak feebar yu la teg. ak capacité yoo am faiblesse bi nga am. dëgg la macha allah. Mm-hmm. muy noonu bàjjan sëñ Lamine a ngi noonu de tubaarkalla <laughs> macha allah. Oh, bu wax moom yi da ngay bëgg a déglu da ngay mel ne ñun ku nekk classe di jàng rek. Mm-hmm. kon dañ ciy jàng ñi nga xamante ne ñu ngi staan ñu ngi ciy jàng. Mm-hmm. xam nga mariage dafa laaj âge pour euh, kii. góor yi góor yi mais xam nga ñun jigéen ñi dañuy wax ne. tel âge buñ ci eggee ménopause nañu. âge boobu buñ ci eggee jigéen dootul am dootul am doom ou bien du yomb. le comme boobu aussi ban la. Mm-hmm. ban âge lay war a toll. Mm-hmm. bi ñu topp ma am deuxième question comme ça ñu profité. kii mm-hmm. ko mooy comme par exemple xam nga am ñoo xam ne da nga leen di may jëkkër tey. bu leen seen jëkkër jëlee rek dañuy jugaale. ëmb doom. léegi comme par exemple bu fekkee ne loolu amul. yow ban moment comme par exemple ñaata weer nga war a toog. wala ñaata semaine wala ñaata at nga war a toog. pour yaakaar ne am nga risque. yaak sa borom am nga risque infertilité. comme ça ngeen mën a jóg teel dem faju ji. jërëjëf Adja Thioune. jërëjëf laaj nga laaj bu am solo. Mm-hmm. bi ci njëkk bi nga mujjee sax laay commencé. Mm-hmm. mooy jigéen bi nga couple bi nga xam ni ñoom ñoo ngi sëy kon couple bépp couple buy sëy bu sëy sa borom kër pendant un an ja un ku góor ki war na dem seeti spécialiste du ma ni kër docteur kese. Mm-hmm. war na seeti spécialiste mën na war nañu seeti docteur exemple. mu xoolal leen seen yaram la moo leen tere am doom wala ñu un an bépp couple bu sëy un an te amuñu doom war nañu seeti un spécialiste mu xool lan moo tax mënuñu am doom spécialiste nag pour am doom mën na nekk un urologue de métier mën na nekk un gynécologue de métier waxuma généraliste de médecin généraliste généraliste du seen spécialité doom dafa am ay spécialiste ñu koy faj un gynécologue de métier wala un urologue de métier wala nga xam sëriñ bi nga xam ni il est spécialisé sur ces domaines. Mhm. ndax sëriñ il y a 390 xeetu sëriñ. Mhm. ñu bëri naan dem naa ci sëriñ dem naa ci sëriñ dafa am sëriñ yi xamanteni ni dafa am lu ci nek ak lañu xam. man exemple sëriñ Lamine Barafa li la jang, li la xam li la mën spécialiste laa ci affaire fécondité ci walu euh, reproduction familiale. ci walu mhm. njabot bu yok. mais couple bi nga xamante dañuy sëy 1 an Japp 1 an et demi ba 2 ans té demuñu kër docteur demuñu ci sëriñ seetluñu lan moo tax. defuñu consultation générale xooluñu la moo leen tere am doom loolu de indi gàllankoor. Hmm. loolu day indi gàllankoor kon nag couple bu nekk bu ñu séy lu yàgg tuuti war nañ seeti docteur. Hmm. Hmm. maximum un an war mooy dem sa xooli spécialiste. war nañ seeti spécialiste. deuxième question bi nga laaj. mooy jëm ci âge jigéen ci wàllu ménopause. nan lay mën a def ba mën a am doom normal. jigéen amul âge jigéen tànk mi ngi gis règle rek war na mën a am doom. bu feebarut. te jigéen ñëpp xam nañu léegi xale jigéen nañu teel a gis wallaay wallaay man xale bu jigéen bu am moins de dix ans hmm. ñu ko sama cabinet ëmb na allahu akbar élève yi mu bokkal classe yaakaar naa troisième primaire lañ doon def xaw ma euh, kii mu àgguñu sax entrant sixième hmm. ñu ëmbalante seen biir ñaari élève te kooku ci dix ans la ñu toll kon kon bu ñu jàpp ni jigéen à l'âge de dix ans mën na gis règle hmm. kon jigéen boo gisee règle rek war nga mën a jël grossesse am na jigéen ñi xamante ne nag ñoom gisatuñu règle loolu ménopause la te ménopause yi léegi ci OMS li mu décrété nee na à partir de 35 ans la loolu du samay wax ah. OMS moo ko wax nee na bépp jigéen bi nga xam te ne dugg nga 35 ans dugg nga ci ménopause précoce. Hmm, hmm, précoce précoce waaw. waaw wala nga dugg ci grossesse à risque. Hmm, maanaam grossesse bi nga xamante ni mën nga ëmb mais à risque bépp jigéen bu am 35 ans. kon ku ko dépassé foo jëm. kenn xamul. ci docteur yi li ñu wax. waaye ñun nag ci sëriñ. ak ci al alquran. ak ci diine. ak ci l'islam ak ci charia dafa ni tant que jigéen mi ngi gis règle. ndax am na jigéen ñi xamante ni ba 60 ans daañu gis règle ça dépend vers plus. ndax man gis naa jigéen bu am 54 ans. ñëw ci sama cabinet di gis règle yàlla dimbali na ko ñu faj ko ba mu am doom te mosuloon am doom. macha allah te am na 54 ans. Mhm. mais nag daf koo jaral. Mhm. li may wax ni yàlla laa ci jël seede. pour mhm. wane la jigéen tant mi ngi gis règle rek comme que yàlla moo ko wax. ci alxuraan nee na bépp jigéen buy gis règle. na mën a mais ji gis règle itam dafa am lu ci nëbbutu ci biir gis règle. ndax dafa am lu ñu naan oestrogène. ostrogène mhm. benn ferñeent la buy nekk ci règle jigéen benn mhm. matière première la comme góor bu defee spermatozoïde mhm. suñ ko eh, suñ dafa am lu ñuy wax sperme sperme dafa am spermatozoïde am spermatozoïde mooy ndox mi sperme bi mooy walax jaani jigéen it bu amee règle dafa am ay nen yi am ci biir loolu moom lañ tuddee ostrogène ostrogène boobu nag mooy tax jigéen di mën a am doom jigéen mën na di gis règle te nen yi baaxul walla amul ay ostrogène kon foofu fécondité ta am nidation mënta am doom mënu fa war a mën a taxaw. Hmm. ndax mi ngi gis règle mais règle yi ngeen ya ci war a juddu juddu ci. Hmm. kon yaakaar naa soxna Thioune. indi naa leeral hmm. waaw ñun loolu dañ koy traité. parce que bu fekkee dafa nekk ci jigéen bi nga xamante ni tey euh, mi ngi gis règle. mais amul ay oestrogène. oestrogène ay complémentaire aliment moo koy joxe. am na ferñeent ci lekk yooy joxe. wala ay vitamines yooy lekk yoo xamante ni moom mooy. produit ay oestrogène bu dee jigéen it am na bu dee góor it. am na lii nga xamante ne mooy yokk sa volume spermatozoïde mhm. maanaam bu fekkee fekk spermatozoïde bi dafa tuuti dafa mhm. ndaw wala nombre bi doyul am na lu ñu lay mën a jox li nga xamante ni boo ko jëfandikoo yàlla mën na ci defal tawfeex macha allah mu mhm. ngi noonu soxna Ndeye sëñ Lamine waaw sëñ Lamine comme ni ñu si commentaire mais may laajte tamit euh, lan mooy cause wu li nit di dundee ci góor ba li ci dundam li tax ba mu causer muy andi am infertilité mhm. ci dund ni nit mhm. comme ñak hygiène de vie bobu mhm. nga jox ñu cause bi ci góor ak ci jigen d'accord cause bi nga xamante ni tax góor mom du meuna am dom li ci ëpp ñom dañuy am ay infection góor ñu bari dañu am infection hmm. infection yi am nak, moy infection yi xamanteni mom moom la ñëpp gën xam moy chaude-pisse góor ñu bari dañu am chaude-pisse maanaam chaude piste si góor mooy booy saw sa saw il mu def direct mais day tasaaroo. Mhm. noonu lañ koy xamee wala saw bi nekk ñaar wala bu nekk ñett wala ngay saw ba ci digg ba muy dagg. te dafay def ay góom yi nga xamante ni ay maladie IST wala maladie MST yi nga xamante ni dafay am ci góor maanaam seen nëkk wala seen kanamu sooykaay mhm. dafa am ay feebar yi ci am wala bu ñuy saw ba ci digg ba muy génn mbër wala bu ñuy saw ba ci digg ba mu génn spermatozoïde am na góor ñi nga xamante ni dañuy seen jabar mais du ñu daanu du ñu daanu maanaam du ñu génn sperme dañuy dem ba sonn rek amuñu ko te loolu feebar la. Hmm. te ñi may déglu ak ñi may seetaan xam nañu ni am na góor ñi nga xamante ni amuñu ndoxu sëyukaay. amuñu ko hmm. zéro. Hmm. zéro zéro zéro. seen ndoxu sëyukaay buñ ko génnoon ba génnee ko bu ñu ko gisoon dafay mel ne dëwlin. te ndoxu sëyukaay góor ku ko bëgg xam dëgg. góor yàlla dëgg ndoxu sëyukaay dafay mel na meew. far meew bu far ndax ndax ndaq laa de. wala comme soow woyal dëgg dëgg. bu am niiw. nu muy mel noonu la spermatozoïde góor bu baax. di mel. Mhm. mais spermatozoïde bi nga xamante ne dafa nii mbatt mhm. mel na dëwlin. Mhm. boo seeyee sa jabar mu génnaat kooku infection daf ci am ay feebar. ay gonocoxie wala genre yu demee bu dee ci jigéen itam am na ay infection yu jigéen di am. yi nga xamante ni moom mën na ko tere am doom. yu mel ne que bu dee tey ji bu dee ci ñun en général jigéen ñooñu dañuy indi ay benn benn bilan muy dañ leen defal benn échographie pelvienne.

jigéen ñi léegi seen seen seen kanamu sëykaay mhm. dafa mel ni waañ comme cuisine di nokkas rek di nokkas rek di dugal waaw waaw dañuy dëbb de ndax ku dëbb laaj dugal ci biir dëbb persil dugal ci biir ñoo ne ma gën a xam jigéen ñi persil sax dañ koy utiliser persil jigéen ñi jimbo yii magie yi magie yii dañ koy jël di ko def ci seen kanam. waaw loolu waañ la wala lan la waañ la dañu togg bàyyi leen fa. waaw léegi kon kon boo toogee mbana la sax loolu jigéen ñi moo tax ñu bëri ay perte blanche. Mhm. bëri ay moom la ñuy am. bëri seen ëmb bu ñëwee sax di toog ay mhm, nga xamante ni jigéen ñi moom la ñuy dugal ci seen kanam. Mhm. pour bëgg rek séduire seen jëkkër ak bëgg lu neexal seen sëy. léegi nag loolu boo nekkee jànq di ko def. nga dugg ci mariage di ko def. xam nga léegi ku ci ku ñu takk bees ñaareel wala aw joŋeel dugal fii génnal lu ne ñu wax la ko léegi lu ne ñu dëbbal la ko jox la ko nga def sa kanam. Mhm. pour bëgg rek noob sa jëkkër. dëgg la léegi nag loolu après di nga sëy du yàgg doo am doom parce que ay infection nga dugal sa biir yaram. Mhm. jigéen ñu bëri dugal nañ ay infection seen yaram. dëgg la loolu nag ci li nga laaj ba tey dama ciy tontu parce que tontu bu xóot la. Mhm. te foog ma wax ci. mooy loolu dafay jur ay feebar yu bari. dinaa ñëw sax après ci yan feebar la jigéen bi xamante ni moo ko tere

dégg ndax jigen war na am perte blanche légèrement. Mhm. mais bu fekkee avant règle bi la ak après règle bi loolu ñun dañ koy xool. Mhm. xet bu amé xet. Mhm. ça veut dire c'est dangereux. infection mom ci jigen perte blanche la. dëgg la moom mooy dem ba indi ay odeur vaginale. légui perte blanche yooyu. bu fekkee dafa nek lu am lu rutax bay melna lalo baxul baaxul la bu fekkee dafa melna lu am niw soow baxul bu fekkee dafa dem ba nek cere baxul bu fekkee dafa dem ba jonaat baxul bu denkee dafa am ba xet juróom yoy bu mu ci am infection boobu c'est dangereux. moom mooy à chlamydia wala à mycoplasme. Mhm. bu mu ci mënti doon ci infection yi ñun mun nañ ko faj. mën ngeen faj mën ko faj ba mu dañ. Mhm. léegi ki nga xamante ni dafa ñëw ànd ak euh, borom këram sëy na ak mhm. borom këram. lu mat ay trois ans 4 ans amuñ doom ñu ne nañ dem seeti sëñ Lamine Baara. Euh, ku jigéen ki ñëw ku góor ki ñëwul. ñooñ naka ngay def ak ñoom ba xam ni euh, cause principale bi ci kan la nekk. waaw ñoom en général comme ni ma ñoom dañu am culture. sëriñ comme suñu genre bi wala ñuy def médecine traditionnelle spécialisée ñoo xam te ne ay spécialiste lañ ci médecine traditionnelle waxuma garabu garab yi ne ci mbedd yi di jaay RN ñu ko jàng ko jàng te xam ko mën ko ba boo leen dégloo nga xam ne ñii li ñu wax lu ñu xam la waaw ay kalaamidia kolomidia yi am na ñoo xam ne mënuñu ko waaw <laughs> ah, sëñ Lamine nii yow lii xam nga ne lii garabu garabu xamu ko man man man mii sax xaw ma lii 22 ans ba léegi yaa ngi am sa ah, cabinet ah. di liggéey. man de pour man dañuy ñëw sax ñëw nga naan ñu xas bi yeeg reenu dina ma reenu dànq bee. boo la ca xasum loore gee eh, nangam nangam mais kalaami jaako la man boobu tamit maa ngi déglu mais. non am na yeneen yi ñuy gën a indi sax. yi ñuy gën indi sax danañ ci uh-huh. xam nga jigéen ñi bu njëkk ba. Mm-hmm. buñ daan sëy rek dañ leen di xas ni dañ jaasir. wallaay te baatu dafa nekk baat bu diis. jaasir ci nit. jaasir ci xar lañ ko xam ak bëy hmm. ak nag ak gëlem mais nit nga xool ko di ko xas ni ko danga nga jaasir nañu bàyyi wax ju ñaaw yooyu waay mhm. s'il te plaît sénégalais nañu bàyyi wax yu ñaaw ci jigéen mhm. waaw jigéen nga xool ko ni ko da nga jaasir mhm. ma baat boobu rek suñ ko dé suñ ko suñ ko décortiqué woon baat bu xóot la kon dañuy wax fertilité wala infertilité des couples ndax mën na nekk góor mën na nekk jigéen yaa ngi xas jigéen te fekk ni sa càmmin moo am problème wallaahi te sa càmmiñ boobu tey comme li nga laaj. Mhm. bu dee góor la. Mhm. dañ lay demander benn bilan spermogramme. Mhm. le bilan spermogramme bu ñu la ko demandé ñu dañ ko xool parce que ñoo ko jàng. suñu xoolee bilan spermogramme bi ci ci ci ci góor. dañ lay defal rajo defal la écho. ñu natt sa ndoxu seyukaay docteur bi daf lay nattuloo sa ndoxu sëyukaay natt ko ci kaas. bu ñu ko xoolee dañuy gis ni danga am azoospermie. wala da nga am oligospermie. wala danga am nésospermie. léegi diggante oligospermie. nésospermie ak yu ni dañuy xool léegi sa ndoxu seyukaay azoospermie oligospermie nésospermie exemple lañ jàpp ñett yooyu ñoo ci gën a siiw mhm. mais mat na douze sinon day compliqué te jël temps mhm. léegi góor googu dañuy xool ci moom douze feebar yu bokk mhm. xool ndax am na ndoxu seyukaay bi ndax bëri na ndax ndoxu seyukaay bi am na mobilité ndax ndoxu seyukaay bi am na vitalité wala gaawul dee ndax am na góor ñoo xam ndoxu seyukaay bu ñu séy seen jabar dafa am temps bu mu fa war a nekk pour fécondité mën a am nidation mën a am doom mën a am léegi temps boobu bu fekkee sperme bi baaxul ñaari fan la fay def wala benn fan day dee. day am na góor bi xam te ne ndoxam dafa woyof. Hmm. am na ci góor bi xam te ne ndoxu sëyukaayam amul vitalité ndox mi bu dundee. dëggu hmm. ndox bi dëgëru. Hmm. ndox bi du dund ndax ndoxu ndoxu sëyukaay ci góor bu àndeek jigéen bu sëy ndox bi dafa war a am doole. dafa war a jóge ci utérus bi. jaar ci ovaire bi dugg ci biir butitu njurukaay bi. toog ci biir utérus ba toog fa. day jaar ci ovaire bi dugg ci utérus ba toog fa. mais am na ci sperme bi nga xamante ni moom bu duggee rek dafa yambar. fi mu toog lay toog rek du. du def dara. te loolu itam feebar la mhm. bu dee ci jigen nak dañ lay wax défal échographie gynécologique mhm. ñu xol ndax amo ndax amo ndax amo amoo euh, fibrome de l'utérus mhm. ndax amo kyste de l'ovaire wala sa trompe yi tëjuwul ndax jigen ñu bëri am les trompes bouchées te trompe bouchée yooyu infection mo koy waral hmm. mo infection yi ñu doon wax sank yi jigen ñi di ndëbb dëbb di duggal sen kanam mu dugg ci sen trompe yi mu dugg ci sen ovaire bi nañu gëm ni ci sen trompe bi la jëm te trompe bi nga xamante ni moom la doom di jaar moo gën a sew sax ku biir big bi hmm. comme catu pusa la toll kon xam nga kon loolu tey jii boo jëlee ay nokkas dugal sa biir kanamu say fatt na day fatt nga sotti ci balit hmm. lu fay jaarati dara du faaw léegi nag jigéen ñi nag problème yooyu moo leen tere am jom soit dañu am fibrome de l'utérus wala ñu am kyste de l'ovaire wala ñu am trompe bouchée yii mooy tere ñett yii en général mooy tere jigéen am doom am na ñi nga te ne nag dañuy am miom itim te ñu bëri dañuy ñëw foofu di ko faju miom mais miom mënul tere jigéen am doom ndax miom ci ovaire bi lay nekk maanaam ci bunt bi lay nekk ci kanamu sëyukaay kiste itim am na jigéen ñu mu tere am doom am na ñu mu terewul am doom mhm. mais fibrome moom pour nga ëmb pour nga am fibrome ndax fibrome ci butitu njurukaay bi lay toog mhm. te fa doom bi war a nekk foofu la fibrome bi di placé wu mhm. kooku pour jigéen bi ëmb doom c'est très difficile hmm. comme euh, li sëñ Fall wax léegi. Mhm. Mhm. Mhm. day tax dangay ngay gën a am envie i pare. ak booy sëy ak sa jëkkër. mais xale yi jigéen dañ koy jël def ko seen kanam te loolu dégg naa à base de xeme xaw ma xeme raas xaw ma xeme yooyu. produit bu toxique léegi waaw kay dégg naa ñi koy def mhm. dañuy dem ba affaire bi dafa mujj nekk drogue ci ñoom soo mhm. ko deful yow doo nekk mhm. non non doo nekk sax même boo sekkut ak góor yow guddi booy tëdd boo ko deful i pare doo nekk te mi ngi causer ay cancer yu dul jeex jigéen ñi ñi koy utiliser kooku tamit sëñ Fall bëgg naa après nga wax ci ak euh, ak euh, lay tax li mhm. ñuy li andi infection yi góor yi am mhm. nan ngay def ba remédier pour mu bañ am daal mhm. loo xam ne lan nga lan la góor ñi war a def pour bañ am yenn infection yooyu yi ngay wax ba mu ba mu leen di jural ñàkk am doom am doom euh, li ma li nga mujjee kon laay njëkkee wala ma njëkkee ci bële non boo ci def rek léegi kon ñu ñu mu njëkkee ci bi nga mujjee góor ñi nga xamante ni ñoom ñoo ngi bañ am infection mooy góor ñi nga xamante ni dañuy am jabar nañ ma baal. Mm-hmm. di taxawaalu. Mm-hmm. loolu moom boo leen bëggee dégg-dëgg jigéen bu ne nga dem sëy ak moom sans préservatif mhm. da ngay am infection parce que xale jigéen itam léegi nañ ma baal mhm. xasuma leen feebar mhm. dañu ci ñi xam te ne dañu feebar jigéen ñi dañu bëri ay infection gynécologique yi ñuy am léegi imaginez jigéen bu am infection boo sëy moom sans préservatif da wàll nga wàll ko sa jabar indi ko sa jabar ah. léegi ngay sëy sa jabar doo mën am doom kon loolu mooy comme li ngay wax danañ ci dellu si jigéen ñi itam ñoo ngi jël ay ay garabu wolof lu mel na net net net net. nepp nepp bi di ko dugal ci seen kanam surtout sunguf bi. waaw sunguf nepp nepp sunguf bi. nañu bàyyi sungufu nepp nepp yi ñuy jël. Mm-hmm. ak yenn garab yi di ko def ci seen kanam mm-hmm. parce que xam nga lu tax sungufu nepp nepp garaaw. Mm-hmm. xam ngeen sungufu nepp nepp lan lay jëriñ. sungufu nepp nepp du pour biiru jigéen. pour wuli der la gis nga. wuli der dëgg la. wallaahi azim da koy xob bi gis nga suufu nam nekk boo jëloon deru deru deru xar wala deru bëy wala deru deru gëlëm nga lal ko jël sungufu nap nap wis ko ci boo yeewoo suba boo dindee nii day mel ne éponge léegi imaginez jigéen à volonté di ko def ci biir ci biir kanamu seykaay lii moo tax lii moo tax cancer du col de l'utérus bi bare dañ ko war a teddee cancer du col de l'utérus bi jigéen ñi ñoo ko indil seen bopp. tey yàlla. jigéen buy jël jimbo jël jël ay xeme jël jël saabu. Mhm. saabu sax et am na jigéen ñoo xam te dañu set ba mu ëpp. Mhm. dañuy raxas seen kanam ak saabu. ak ay gel yu bëri bari bëri saabu. Mhm. saabu yi toxique ak chimique la. dëgg la nañu bàyyi xel ci yooyu. kon lii mooy li nga xamante ni mooy liy indil problème góor ñi. lii mooy liy indil problème jigéen ñi. yaakaar naa am na lu ma fàtte. boobu la mu ngi noonu. voilà ma ma reetu li tudd sax ab réew hmm. mais liñ naan dafa fees ci dëkk bi hmm. xam nga miy wax boo ko defal li ma naan liñ naan boo ko jëlee ba pare dangay ngay ba pare di suus di metti hmm. kon yow mi ngi lay indil ñaari problème te yaa ngi koy def euh, sa kanam sañ Lamine wax léegi lu am solo ci nep-nep xam nga dañu xewal loo xam ne nii pirip ñu nga jëlal nepp nepp boole ko kaarite jëlal lii jëlal laa jëlal te gis nga kaarite bu bari sax yàgg nañ ko am na foo xam ne du palaasam waru fa dem rawatina nag yow nga daal di jël sa neb na daal jax dafa say composant def ko sa suppositoire di jël rek di def jigéen dafay am foo toll da nga war a dem seeti gynéco boo demee si gynéco bi ba mu seet la ban la say trompe dafa bouché ndax ñoom it tubaab bi am na foo xam ne fa la yam bu la nee say trompe bouché na ñoom daanaka fa la ñu yem mhm. mais ñoom yàlla may na leen bu ñu la nee trompe bouchée na am na boo demee si ñoom loo xam ne dañ la koy jox ba trompe yi dina ubbeeku mm-hmm. danga war a xool ñaari màcc yëpp wax na léegi lu am solo waxuñu la rek nag nga dem rek nag yow ñu ne la reen bi baax na ci xob bi baax na ci ñiy faj loolu mm-hmm. dañu toog seeni bureau nga fekk leen fa ni benn ngi nii jàkkaarloo ak parce que li ki lay jox garab maam jaara wala lu ñu la jëlal garab bi te xamoo dosage bi nu mu toll rek indi nga sa bopp problème mhm. bis mu nga jigéen jigéen joo xam danaan garab gi ba ma ko naanee sama estomac bi mhm. jabar garab gi ba ma ko naanee yow xamoo lan la mën a juraat sa biir biir bi mhm. ba indil la problème li ma naan lu ci nekk rek dangaa war a dem ca ka koy def la euh, Lamine nag dafa am yu bëri yum tudd yoo xam ne nii li ma naan waroon nañ ko tegal tableau fii parce que dafa dañoo mel ni ñi ngi defaat euh, science naturelle écofam mhm. écofam moo dellu si waat mhm. genre yooyu moo ñëwaat tey mhm. mais dafa am loo xam ne nii it maam yi dañ ko fi baax parce que bu fekkee sëñ Lamine nit ki dafa ñëw ci yow dangay ñëw rek dafa am fooy jaar ak moom ba xam li ko dal yaakaar naa doog koo jox ay garabam parce que du ñëpp ñoo yem te dafa am ñaarim tudd muy fibrom muy kis dafa toj dëkk bi ak trompe-bouchée yii jigéen joo wax mu la damaa am fibrome jigéen joo wax mu la damaa am kyste mhm. jigéen ñi di nga gis jigéen di ko opéré trois fois mhm. te teewul day dikkaat mhm. parce que am na des fois looy wax loo xam ne yow da nga koy dund wala nga xam ci dara da ngay gis mu léegi da ngay gis jigéen joo xam ne danaa la man de am naa kyste waaye ba ma demee sëñ lamin Baara daf ma traité kist bi dafa dagg motax ma am dom parce que li ma naan docteur bi mom chaque jour rek amna fumu yam amna bo xam bu fa yamé rek danaa la carrément monatul nek waye sëñ Lamine ki ñëw ci yow yow dang koy xol ba xam kyste la wala fibrom la wala trompe bouché la wala ki lan mo waral mbir mi nga doga jakar jàkkaar faj ko banen bi moy si léegi si biir reportage bi dañ fi deg ñu ni dafa am jigéen ñoo xam lool yëpp du len jot waye dañuy am rap dañuy am rab boo xam ne da leen di sonal mhm. man parce que ñiy toog it bëgg nañu am leerlu boo xam ne ba ñu jógee xam nañu fan la ñuy jëm mhm. moo tax man ma la doon laaj ñaari question yi dëgg la soxna Maratu li ma ci njëkk indi rek mooy man moom sëñ Bara Fall du ma faj nit mukk te defuma consultation mhm. loolu moom c'est impossible dara jaralu ma ko ci àddina dara dara dara dara dara jaralu ma ci àddina man may faj nit te du ma def consultation il faut que ma poser la bonne diagnostic approfondi nag jël sama temps approfondi ndax man du ñëpp na man téméré nit yi ñëw ci man man fa benn nit mu wër moo ko gënal. Mhm. benn nit par jour mu wër man moo ko gënal. dama par rendez-vous lay jël. Mhm. dafa am nombre bu may jël. ku mhm. yàkkamti demal. man dank lay liggéey. dafa am nombre de personnes bu sama secrétaire di jël par jour. bu ko jotté beneen rendez-vous lañ lay jox. man non lay liggéey. ku ci ñëw ma xolal la ba mu leer wax la lan mo la téré am doom. mais ki sank dafa am li xam te ni itam li xam te am importance mu jëm ci fibrome. kiss ak mio kon fibrom bi il faut ñu joxé ci touti deug la wax ci. ndax fibrome mooy buti euh, mooy ci butitu njurukaay bi ci utérus bi. Mhm. la fibrome bi di placé wu. tëdd fa mais bëri dañ koy opéré deux à trois fois. wallaay mhm. maanaam at bu ne ñu opéré fibrome. ndax fibrome bu ko docteur yi di opéré. Mhm. ñoom euh, euh, chirurgien de métier bi. bu mag bi lay dindi. gis nga seen ndaa yi ni mu toll. noonu la fibrome bi toll am na yu toll na sa leket bi. wallaahi day dem ba toll bopp liir. Les gens qui ont dindi bu mag bi se faire, dindi mhm. yu ndaw des dañ les rejets mhm. chaque un a day toll comme bu mag ba Ils mu fait mhm. ndax day ñun fait bu ñun man bu dépa man dootuma ko mën a faj. Hmm. man bépp nit bu may faj fibrom dama lay wax ni indil ma sa écho. Hmm. boo amuloon écho bi man la dama defi écho nga indil ma ko man ma def sama demande ko hmm. nga indil ma écho bi ma xool. su fekkee sa fibrom dafa def cinquante cinq millimètres dootuma ko laal parce que kooku intervention chirurgicale directe. ndax man mënuma lépp. am na lu ma mën am na lu docteur bi mën te dama koy respecté. mais bu fekkee nag c'est inférieur à cinquante cinq millimètres. loolu mën naa ko faj maanaam lu gën a tuuti loolu. ko faj. maanaam exemple bu tollee na citron. Mhm. wala bu tollee na mango. mën nañ ko mhm. faj mais fibrom bu toll na bopp liir. Mhm. kooku mën mënatuma ko seeyal. dëgg la. mënatuma ko seeyal. ndax mënuma lépp. am na ci nga xam ne dañu am kyste. kyste yi moom en général ak mm-hmm. lipom yi nu mu ci mënti toll ñun danañ ko faj ak miyoon yi mm-hmm. bu dee dafa trompe yi dafa fatt dafa bouché mm-hmm. am nañu garab yi ñu lay jox ay complémentaire d' bio naturel yu mën a débouché trompe yi sans intervention chirurgicale parce que trompe yi mooy butitu njurukaay bi dafa fasu oh. wala dafa am ay microbes yu ko fatt léegi nag am na lu ñu lay mën jox bio naturel ba mu ubbiwaat trompe yi loolu itam day am mais dafa wax itam lu am solo ci biir wax ji ci biir reportage bi. Mhm. dafa am ñoo xamante ne loolu yëpp daanu leen. waaw raba leen di gàllankoor sax ci rab. Mhm. dafa am jigéen ñi nga xamanteni amaguñu jëkkër. Mhm. mais à tout moment dañuy def ay rapports sexuels ah, abusifs chaque jour ñu jël pilule de lendemain. chaque semaine ñu jël pilule de lendemain. chaque weer ñu jël pilule de lendemain pilule de lendemain yi ñuy jël. sëye góor ba pare préserver woo. jëloo préservatif am nga sa bopp infection. yaa ngi bañ risque ëmb top la ci yàq sa bopp. léegi nag ngay jël ay pilule de lendemain yi ñuy jaay ci pharmacie yépp à volonté sans ordonnance. sans ordonnance ñoo koy jaayee 3000 3500 yu wax les non niveau. suñu technicien nañu ko wan pour ñu gis ko. Mhm. Norlivo yi mi ngi tek tek bi. Mhm. té noonu la seeree dé 3500 lay jar. Ah. Mhm. publicité wu ma pour eux mais il faut ñu wax. dëgg la de. relation égale communication ñun ñoo fi nekkal askan bi. dëgg la foog ñu waxal askan bi. dëgg la ndax am ci xam dañ ko neub bu mu ëpp. dëgg la c'est tabou. te bari na plateau bu melni rare na nga koy giss ci ah, Sénégal ndax yeen yu bari duñ ko nang wax wala spécialiste yi duñ wax dañ koy wax ñi warul wax lañ ñooy wax mhm. ñor niveau yi ñi jël diko ko naan technicien bi amna amna élément yi ñu ko demandé ñu ko won ñor niveau yi ñi jël mhm. diko jënd ci pharmacie yi muy nekk le pilule de lendemain mhm. bari na ci couple yi xamanteni ne jigéen ñi ñoo am jëkkeur bëgg am doom parce que da ngay da ngay sey bëgg di caaxaan bis bo bëggé am doom nak yalla ñu la wone duma la may waaw waaw ndax yalla ku mat la ku am fullalu ku am fayda la amo jëkkeur di fo di naan ay pilule pour bañu a ëmb léegi soo bëggee ëmb nag yàlla ne la la may doom ndax gis nga pilule de lendemain yi gaay di jël mhm. dafa am ay effets secondaires day tecc say trompe daf lay jurool kiss mhm. daf lay jëlal fibrom daf lay indil ay infection mhm. dafa am ay effets secondaires ndax mom bombe la nañu ma baal ci cadre gi dama ko mëna waxé dafa melna dom bu nekkon ci biir bi léegi da koy tas da koy tas té benn do nga lay ne ci benn do comprimé lay nek nga nan ko ci ndox mais gis nga dom gis nga sperme bi da koy tas comme bombe ci biir bi léegi imaginel ban effet toxique lay def ci sa yaram mm-hmm. léegi imaginel am na jigéen ñoo xam te ne chaque weer liñ ci jël dana ëpp trente waaw loolu foo koy waxee wala mu ma quinze wala mu mat dix te lii Norivo bi mm-hmm. may na ñu jigéen jël ko une fois mm-hmm. par deux mois waxuma par weer par deux mois gynécologue de métier yi may déglu kenn amu ci droit jigéen amoo ci droit jël ko une fois par deux mois léegi nag daañu dellu si affaire rab léegi bu ñu jógee si Norivo balaa ñuy dugg fa ne dafa am ñun jigéen yoo xam ne dañ koy jël ndax bëgg njur gi soreyantoo mhm. te xam naa ne bii ni mu amee problème di def effet mhm. Mhm. ci yaram béyit xam naa ne ku ko wàññiwul it dina doy waar waaw parce que ñun it suñu liggéey am na ñu ay planification familiale naturelle bio ah, naturelle waaw bii la jigéen ñi waaw ndax am nañu ay planification familiale yoo xamante ni dana sureel njur te doo naan ay comprimé eh, te doo naan sunguf te doo naan dara waaye loolu du li ñuy wax ci télé ndax li ñuy liggéey la waaye ku ko nga liggéey mais nañu xam ni itim du question on a quelque chose avec la médecine moderne mhm. dañu am benn animosité ak médecine moderne mhm. yéen ñii jigéen ñëpp xam ngeen lan moo ci planification familiale mhm. am na ci li nga xamante ni brin la dafa am effet secondaire day ngandeloo nit ñenn ñi seen règle ñi ci des daf leen di ay bopp yu métti ay migraine ñii daf leen def ay feebar tànk yu métti na ci nga xamante ni ci place dañ koy placé ci kanamu sëyukaayu jigéen am na ci li nga xamante ni koy piqûre am na ci li nga xamante ni koy naan te loolu yëpp docteur yi. Mhm. ak ñu def santé ñëpp nangu nañu ni dafa am effet secondaire. maanaam lu mu la may tey suba dan na ko xañ. Mhm. ci sa yaram. Mhm. te loolu itam lañ ci wax. planification familiale bi samay wax yéen a ko wax. yéene ni dafa bëri effet secondaire yi muy am. te bokk na ci li xam te ni mooy causé nit ñi war a am doom. couple yi war a am doom mënuñoo am doom. aha mu ngi noonu ci loolu la ñuy doxantu ànd ak euh, waa tamit daal demaat euh, taataani élément bi nga xamante ni moom lañ euh, jëli foofu. ci cabinet seigne Lamine Bara Ndiaye ñu daal di ñew ah seigne Lamine Bara Fall ñu daal di ñew <laughs> Ndiaye yaa ma sonal de ñu daal di ñew <laughs> daal di euh, tewlu element bi dellu si waat macha allah. waaw mbokk yi alaykum wa ma doon wax affaireu ñaanu Bara Fall yëpp jarta yakamti nank nank rek ci mbirum dom mbirum doom moom traitement la rek ki mëna nan tay jël ëmb ki mëna nan ba 3 mois dogo jël ëmb ça dépend ci biir nit ki nu mu tëjoo woon. ça dépend ci biir mën na dem ba 6 mois sax ça dépend jigéen bu nekk at nu mu tëjoo woon parce que man mën naa ne tëju naa ëpp na 10 ans de mariage ñaari jëkkër yi ma amoon yëpp aw ma kenn doom bi ñu gisantee nii daal laa jël ba wax dëgg yàlla ci garab yi moom ma jox nii ma naan di naan pour mooy wax mbokk yi affaire bi mën na mën nañ gaaw la tey mu ñii mën nañ gis te daan deux wala mois mais de toute façon de gis dinañ gis résultat. waaw parce que am na ci jigéen ñoo xam ne nag des fois mën nañ naan garab gi seen trompe lii moo fat soit ñu defoon avortement yu bari bari bari tromboli bu fattee gara yi da ngay naan nànk-nànk rek mu ngi raxas sa biir nànk raxas da ngay xëy rek gis sa biir set day am ci ay jigéen fekk dañu defoon avortement raxasuñ seen biir bu ñu raxasul bu baax biir bi day dem ba sa tromboli bu fattee doom bi du gaaw day yéex léegi bu sa tromboli setee pour nga ëmb day gaaw ñu mosoon a am doom di ëmb muy deñ di ëmb muy dem di ëmb muy deñ ñooñu mun na leen dalee noonu nga xamante ne bu ñu naanee day xew a yéex tuuti parce que tremble mo fat fat fat ba il faut mu déboucher wu dañuy naan garab gi nank muy raxas sen bir ba xey set ni ngay naan kay sawé yëpp da koy dindi nank nank dal ak ni ngay sango deug yalla baara faal aw ma sa fay jërëjëf merci beaucoup sama soxna yow ah yow pour affaire bi garab bo. ba yàlla def ma ci am naa sàq ndeer am naa sàq ndeer léegi vraiment ci moom ku tëb xamul man xam naa ko yàlla may na ko ay xewul yu bëri te garab bi mu la jox garab bi mu la jox rek boo ko jëfandikoo rek du résultat asalaamaaleykum sañ Lamine Baara maa ngi lay nuyu di la ziyaar yi di la jox wàcc wàccuwaay ah di la ñaanal yàlla rek nga yàgg ci nga yàgg ci àdduna lu yàgg yàgg di xetti di jaam yi vraiment maa dee doon déglu sa benn waxtaan ci varicocèle wax dëgg yàlla bëri na ay sëriñ yoo xamante ni daal joxewuñ ci daal maanaam lu ñu xam. vraiment yaa ngi xettali jaam yi yal na nga yàgg ci suuf waaw yal na nga dajak sëñ Touba aljana ci barke Seyduna Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam yal na yàlla dafa sutura àdduna ak àllaaxira lépp looy séntu ci sëñ Touba rek yal na nga ci jot ci barke Seyduna Muhammad ni ngay xettalee jaam yi yal na la yàlla xettalee noonu vraiment léeg-léeg nga joxe yoo xamante ni wax dëgg yàlla nit fay na ci ay milliards te gisul résultat vraiment yow ñu ngi lay gërëm di sant maa ngi lay gërëm di la sant bu baax. jërëjëf macha allah mi ngi noonu xam-xam rek moo moo wóor tubaarkaal la ndax eh, ñii tey jii eh, toog di témoigner li nga xamante ni moom lañ eh, dund ak sëñ lamin Bara Fall macha allah. ci li nga xamante ni moom la ñuy waxtaane tey yàlla defal leen ci sutura soxna Mbène ah ba tey ñu mën a toog di ci di ci waxtaan kon képp koo xamante ni rek mu ngi ñuy teewlu jamono ji tey dund jafe-jafe nga xamante ni tey moom la ñuy waxtaane muy ñàkk am doom ci wàllu ku góor ki wala ku jigéen ki nañ doxantu rek ah, ba cabinet sëñ Lamine Bara Fall wala ñu woote ci numéro yi nga xamante ni ah, jamono ji moom mooy affiché fii ci écran bi wala ñu dem ba Géejawaay rond rond point fan la nekk te marché jeudi mu ngi noonu foo taxaw arrêt du balees laajte cabinet sëñ Lamine Bara Fall dinañ la tettal ba foofu waaye na balaa ngaa ñu tamit na nga woote ah bañ jox la rendez-vous wala nga bàyyi message ci whatsapp bi kon ñun léegi ñu ngi bëgg a xam liggéey bi nga bàyyi message ci whatsapp bi bu ko defee sëñ Lamine baara dina la tontu soxna Mbène ñii de xol bu sedd leen tax a wax. waaw mais xam nga mhm. euh, wax sànq ak gëm yàlla ci li def. Mhm. parce que tamit xam nga gëm yàlla ak dëggu mhm. mënul weesu nga ne lu ma mënul mënuma ko ci fulla lu ma jàngul mënuma koo faj mhm. loolu nag a jafe léegi mhm. kon yaakaar naa ne lii rek wane jar na jar na war na tax ñu wóolu ko man na bala may poser sama question dafa am foo xam ne ki daf fee ñëw te dafa am solo lool parce que d'habitude dañuy dañuy wax infertilité bi ñàkk am doom bi dañ koy jiiñ jigéen ñi ah, waaw lu bari ci lu bari duñu xalaat ne mukk kii jëkkër ji mën na ko am mhm. ca buñ dégloo sa waxtaan mhm. dinañ xam ne góor mën na góor mën na tee mhm. doom am ci ci sëy bi kon tamit góor yi ñu leen di dénk bu ñu am kersak ak complexe bañ a dem faju ji bu sa jabar faju jee ba ñëw wala buy faj nga ànd ak moom. Mhm. ngeen dem faju ji. Mhm. ñaan yàlla suñu borom fajal leen seen jàngoro. Mhm. kon foofu moom fi ñu ci insisté. am na solo mais man dama am fu ma bëgg ñëw euh, sëñ Lamine. parce que d' habitude dafa am yoo xam ne aussi c' am na famille yoo xam ne. bu ñu sëyee. dañuy yéex am njaboot. wala du ñu am njaboot. ci boppam. yooyu aussi dina am. loolu boo tontoo sanq parce que maret ñëw na sànq ci affaire rab bi. boo tontoo ba pare. bëgg naa man tam nga tontu ma ci parce am yoo xam ne que ni duñu gaaw am njaboot. Mhm. wala duñ am njaboot du tout. Mhm. dëgg la jërëjëf Adja Thioune. Mhm. sa question ak question Marietou sax mën naa ko boole muy benn tontu. ndax ñoom ñu ànd nañ. ndax dafa am famille yi nga xamante ni yàlla def na barelewu na. loolu noonu lañ koy tuddee. ñoom seen ay génération yëpp du ñu bëri la doom famille bi xam te ni bu ñu bëri doom ba bari doom ñaar la ñuy am wala ñett am ñoo xam te ni sax difficilement lañ koy am daañu sëy ay at doog am doom mën a ñëw ñooñu en général li ci ëpp ci ñoom ñoom dañu am problème mu rab. Hmm. ndax cause bi nga xamante ni mooy tax jigéen di teew am doom. Hmm. wax nañ ci sànq. 30 hmm. pour cent bi ci góor la. 30 pour cent bi ci jigéen la. beneen 30 pour cent bi cause bi rab la. 10 pour cent bi mooy feebar. dëgg la feebar boobu nag dafa englobé waat ci ñoom ñëpp. kon nañu jàpp ni rab. la majeure partie ci ñoom bu ñu ñëwee. dañ lay wax ni ñoom dem nañu defi rajo. Ah. def nañu analyse def nañu échographie gynécologique bi nga demandé woon ci télé bi sëñ Lam Fall FM. def nañ ko. def nañu spermogramme bi mhm. sama jëkkër xol nañu ndox soy kaayam nat nañ ko mhm. amul azospermie amul oligospermie mhm. amul nésospermie amul sax varicocèle ndax dinañ ko léral amna fièvre bi ñu naan itim comme ni ko wax sànq terme scientifique bi naa ñew fièvre bu ñu wax varicocèle te yeen miinu len ko la varicocèle c'est la dilatation des veines autour du testicule manam góor gu nek say say bourse say nen nen nen nen yi muy produire spermatozoïde légui nen yoyu bu fekkee dafa am fièvre mom mu ñu wax fièvre bu ñu naan varicocèle te ko varicocèle boobu mooy góor gi ci boppam ndoxu sëykaayam dafay woyof wala mu am ay problème mhm. muy feebaru varicocèle la mhm. majorité majorité des hommes ñu am mhm. problème boobu varicocèle la ñu am après consultation dañuy gis ni ñoom dañu am varicocèle maanaam butitu butitu euh, sperme veine yeeg artères yi war a jaar spermatozoïde bi canal bi mu war a jaar dafa fàtt dëgg la te loolu dañuy dem ba góor googu dañ koy tëral hôpital urologue de métier bi da koy tëral ñëw ba ca testicule yi ci bourse yi. Mhm. dagg ko ligature ko wala mu def ko par greffé waat ko. Hmm. wala ñu def ko par laser. Mhm. loolu c' est ci côté scientifique. Mhm. mais ñu am nañ ci liñ ci faj ci wàllu varicocèle. ki nga xamante ne ndox seykaanu dafa am problème. mais ba tey mareetu dinaa delluwaat leeral ak soxna Cuun. ndax am na ci feebar bi ñuy wax feebaru ndoxum siti ndax ndoxum siti itim bokk na ci li ëpp. Ah, li indi feebaru tew am doom. ak jigéen. ndax jigéen bu am ndoxum siti ba mu jàpp ko dëgg mhm. dafay laal bëtutu njurukaayam waaw kon mën nañu wax ni ñu bëri ci famille yi xam te du ñu mën a am doom famille yi boo ko seetloo dañu nekk ñi xam ni seen famille dañu ndoxum siti mhm. ndoxum siti mooy toppum sët ya ku sa ndey ne amoon ndoxum siti sa baay am ndoxum siti sa maam am ndoxum siti sa naati maam am ndoxum siti yow nga judd moom faw nga am ndoxum siti mhm. ñenn ñi ci bëri bu ñu leen traité ndoxum siti yàlla dañ leen dimbali dañuy mën a am doom directement dëgg la am na ci ñi xam te itam dañu am diabète te jabet bi itam bëri na ci góor ko bëri na ci jigéen. dëgg la gis nga jabet. Mm. itim mm-hmm. dafa bokk ci nga xam te ne dafay indi problème infertilité des couples mm. ci jigéen ak góor ndax dafa am ay effets secondaires yu jafe jabet di am xam naa daañu mës a am temps. Mm-hmm. comme ni ñu jëlee tey. ñu toj spécialement ci jabet. ci jabet jabet sonal na nit ñi jabet bi sonal na nit ñi. sonal na nit te góor ñu bëri ñoo ngi néew kattan ndax day yokk seen ndoxu sëyukaay. jigéen ñu bëri itam dafay rey seen ay hormones féminines mm-hmm. maanaam nen yi nga xamante ni jigéen moom la war a mën a am mm-hmm. ak nenu ku góor pour ñu couplé ku góor ki nen boobu bu fekkee dafa am ndoxum siti da ay yàq bu dee ku jigéen ki itam dafay yàq mm-hmm. ndoxum siti kon dangereux na diabète dangereux na hypertension artérielle bokk na ci feebar yi nga xamante ni itam day yàq indi ay avortement indi ay fausse couche jigéen bi dana taxawal ëmb benn weer ñaari weer ëmb bi tuur waaw surtout loolu loolu mooy gën a bëri nag jamono yi ëmb da ngay ëmb ba am yaakaar mu mu kii waaw parce que focus bi su commencé dëgër rek mhm. ndoxum siti bi jàpp ko wala nga am tension sa tension yéeg léegi mhm. ndax tension bu normal douze neuf la jigéen bi xam te da nga am ëmb bu ndaw sa tension dem seize mhm. dix-sept dix-huit vingt ëmb bi day tuur ndax ëmb deret la te deret bi mooy liyeewu ak doom bi pression bi lu muy sànnee ci doom bi bu ëppee doom bi day dee ci biir oh, te nañu bàyyi hypertension artérielle nañu xam ni dafay dafay indi ay fausse couche day indi mhm. loolu mooy li ñu am na solo mhm. tubaarkalla Adja mhm. comme sànq li mu doon wax ci affaire Norlevo euh, par rapport ak Norlevo bi ndax li muy wax laa dëgg mais dañ pharmaciens yi dañ doon def sondage li ñu gën a jaay ci fin d'année bi mais li ñu wax nee nañ la ñu jaay ci Norlevo jaayuñu ko ci benn garab dafa dem ba nekk pénurie loolu fan lañ jëm loo xam ne benn yoon ci at bi nga ko war a jël te loolu sax pour ñuy sëy la mhm. boo seetee des fois nit am benn problème boo xam ne moo tax mu ñu koy ñu ñu presque di ko digal nit pour mu jël ko mais paaxale yi nii ñu koy jëlee mhm. chaque weer chaque semaine yaa ngi wax weer waaye nit ñi ñu bëri semaine laa la wax xaaruñu weer sax ndax boo bëggee dem fii dem fee boo ragal boo paree fii di nga dem jël wala mooy loolu daal kenn xamul ba pare ma doon laaj comme feebar yi ngay wax nii. Mhm. Euh, feebar maladie grave yi. Mhm. muy hypertension. Mhm. muy diabète. muy euh, thyroïde. hyperthyroïde yi tamit. xam nga nee nañ dafay tax nit. du du mën a euh, jur. Euh, ak euh, bi insuffisance rénale mhm. yooyu yëpp ay feebar la yoo xam ne day tere mhm. nit ki mën a concevoir mhm. léegi lan ban yow ban méthode ngay am pour éviter nit ki bañ a am doom ci ñi am loolu ñi am feebar yu grave yow est-ce que di nga ko mën a faj daal ak lan ngay def pour euh, éviter infertilité boobu ci ñooñu maladie bi ci gën a ci li nga wax muy insuffisance rénale te ñu constaté ni léegi dafa bari mais itam loolu insuffisance rénale nekul cause bi nga xamanteni ni permettre nit bañ a mën a am mhm. ndax ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir. Mhm. nit mën nga am insuffisance rénale. am c'est di normal hmm normal. di c'est sa jabar normal. ta amo ben problème. nit ki mën nga am insuffisance rénale ñu lay ngay dem ñuy def ñu defal ñu lay defal dialyse chaque semaine wala chaque mois te téwul sa sa ndoxu sëyukaay mi ngi nekk de très bonne qualité. Mhm. tant que yow amo varicocèle ci góor. tant que góor gi amul varicocèle amul ay infection mhm. ndoxu seyukaayam bu ñu ko xoolee amul azoospermie amul oligospermie amul nésospermie mhm. ça n'a rien à voir ak insuffisance rénale waaye nag insuffisance rénale góor ñi ko am ci sur cent kenn moo ci mën a sëy normal mhm. sur cent kenn moo ci mën a sëy normal ndax insuffisance rénale ku ko xam ku xam góor xam ndigg te ci ndigg la ne doole bi doot fa nekk dañuy am impuissance sexuelle mhm. dañuy am éjaculation précoce dañuy am faiblesse sexuelle mhm. nañ ma baal dañuy yéna a laaj te foog ñu tontu té xam-xam rek lañu wara wax mhm. dañuy am fièvre yoy dafa ànd ak feebaru tële ak fièvre néew kàttan bép góor bu am insuffisance rénale man nak duma ma insuffisance rénale duma ma cancer mënu ma ko faj du ma cancer té insuffisance rénale presque dafa dugg ci cancer ndax dafa dem ba sa deret dañuy li tax ñuy wax insuffisance rénale moy ah, góor nit ki nga xamante deretam baaxatul. Mhm. chaque semaine dañ ko war a changer. Mhm. defal ko deret bu bees. Mhm. loolu moom amul benn sëriñ wala benn médecine traditionnelle bu wax ni da koy mën a faj. je défie quiconque mënuñu ko faj. nañu bàyyi caaxaan te wax dëgg. nañu defaraat suñu toogaay te génn ci caaxaan yi. mënuñu ko faj. cancer sëriñ du ko faj. nañu noppaliku cancer sëriñ du ko faj insuffisance rénale sëriñ du ko faj. bu leen sonal seen bopp. lu ku ci nekk da nga am sa yoon. on n'a pas l'obligation de guérir mais on a toujours le devoir de faire. mais yéen bu dee côté am nga xanaa yu ngeen di jox nit ki mu mu mu mu kii ko mu gàttandu ko sax ba du ko du ko du ko andil yenn jafe-jafe yi waaw ci beneen thème bi ñuy jëm lii ci semaine. waaw waxtaan ci hépatite B. Hmm. bokk na ci li nga xamante ni day jur cancer. jamono jii de mu ngi foofu nit ñi déglu te nañ ko xaar. semaine jeudi bii di ñëw même heure. Hmm. ci hépatite B la waxtaan. tos dëkk bi moo ngi noonu nañ demaat jëliwaat beneen élément bi laa tax ñoo yëkkati jotaay bi ndax waxtu waa ngi xëcc jëm ci jeex mu ngi noonu euh, nañ dem jëli élément bi doog a del siwaat ba séeru salaamaaleykum Samadou Lamine Bara ziar naa la maa lay jox sa wàccaay bu baax baax di la bëggee di la ziar bu baax li nga wax lépp dégg naa ko waaw yàgg naa laa ñaanal de yàgg naa laa ñaanal sëñ Bara yàgg naa laa ñaanal sama taaw ba mu foofu laa dikk mom may ngi dëkk PA yi foofu laa dikk ak soxna si boobu ah, man ak soxna ci seen ñent at mais bama ma fofu wax dëgg yalla ba nga jox mo li may jox man ak soxna si ñu ci ñaari wër yalla def li gën wa man kay xana sori way bi rek mo taxoon ma yeex a kii quoi mais inshallah rabbi li nga wax dégg na ko bu baaxa baaxa baaxa a baax dama eh, déggoon ñu ay sëñ baar ñuy wax ci moom ay jaloore eh, ñoo xam ne dañ fa demoon am ay résultats bon pratiquement mosuma sey hôpital am naa soxna non du ma woon tere sëy mais pratiquement damay sentir ni bu may sëy daal pratiquement ak bu njëkk ba ak léegi vraiment uute na uute na am na différence ci laa ñëw dégg ñuy wax sëñ baara ma ñëw seet si bon war na mat juste euh, deux à trois mois maa ngi sentir am vraiment amélioration wax dëgg yàlla par rapport bu njëkk ba salaamaaleykum wa rahmatullah sang bi sëriñ baara faal nuyu naa la ziare na man de mos naa ñëw foofu wax dëgg yàlla maa ngi amee woon fibrom nga faj ma ba ma am doom léegi nag dama amee hémorroïde boo xam ne dafa yàgg lool ak man te ba tey mi ngi ak man sa bi ma doon fajoo foofu wax dëgg yàlla lépp ma amoon rek moom laa daan indi ñu bindal ma ko yàgg na nag li ma lay wax nii at yee passé waaw kay nekkal ci jàmm ju bëri bàyyi waa sëriñ Bare ñoo ngi delluwaat di la ziar bu wér waaw même soxna si sax mi ngi doon wax naan garabam yi moomit it baax na lool garabu ndoxum siti yi nga ko jox baax na trop waa jërëjëf ñoo ngi jégalu baax nag jërëjëf waay. asalaamaaleykum Serigne Lamine Bara Fall maa ngi lay nuyu garab yi nga joxoon macha allah moom macha allah ñu ngi si gis tan bu baax ñu ngi si gis tan bu baax kay ñu koy dañ lay ñaanal rek yàlla yokk sa bi ndax yow sa fan gudd daal moom dimbali dimbali dimbali jaam yi la. ndax wax dëgg yàlla jaaxle woon nañu trop ci feebaru meer bi waaye depuis mu commencé jël garab yi léegi moom waaw ñu ngi sant bu baax tension bi normal na su ko si tamit noonu waaw daal ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm jërëjëf. sëñ Baara maa ngi siyaar bu baax a baax a baax a baax a baax naka yi tey naka njaboot gi naka liggéey bi. Mm-hmm. ñii noonu euh, sëñ Lamine ñi tubaarkaala macha allah comme li ma wax euh, sànq rek ñoom itamit seen témoignage am na solo lool ndax nitam buy def euh, liggéey ba nit ñi seen xol sedd ci yaakaar naa ne waaw góor yàqul dara soxna Mariétou te euh, lii dafay tax nit ñi gën a gëm li ñuy wax gën a xam tamit li ñuy wax ndax tooguñu fi li may wax ni defal kenn promotion waa nit ku nekk la ngay liggéey rek moom moom moom mooy feeñ ci ni ngay ni ngay doxalee amaana tey bu fekkoon ne sëñ Lamine li ma ne nit ñi bañ koy xam boobu lu yàgg la woon te ci fulla lañ ko xam ci fayda ak liggéey liggéey bu suur ndax booy wax ne man faj benn nit ba mu wér moom a gënal téeméer fukki junni yoon ndax nit ñi tamit kenn moomu leen seen làmmañ lañ yor fu ñu dem benn yoon gisuñu fa lu fa delluwaat muy noonu sëñ Lamine xam naa nag waxtu wi daa xëcc jëm ci jeex waaye euh, tey li ñu doon waxtaane xam naa ne tubaarkàlla macha allah euh, amal na nit ñi solo lool te euh, dinañ ko toppaat nag bu baax a baax samedi ci révision bi waaye tam leneen li ñuy fas yéene waxtaane alxames bii di ñëw na ko ñëpp jàpp te déglu ko muy hepatic B yang koy wax léegi ñi ñaa nek ci cancer bi di wax ak yoy non waye hepatic B mu ngi def euh, euh, yu doy war dal yu doy war nit ci si seen bakkan kon jar nañu war xel bu baaxa baax ñun ñepp ku ne toddi di ndax jamono jii nii jamonoy jang la li ngeen dafa soppi ay buntam soppi ay doxalinam ñew nak ci ngeen jang gëna xam bu baaxa baax ak tamit bu ngeen jaaxlee fan ngeen di dem euh, pour mëna faju faj bu jaar yoon señ Lamine ñu baye la nga tagato ak téléspectateurs jërëjëf euh, soxna si <laughs> maam Diarra ñu ngi leen di nuyu di leen charré bu baax di leen jaajëfal <laughs> di kontaan ci émission bi vraiment c'était riche <laughs> am nañ ci yaakaar ci ñi doon déglu ak ñi doon seetaan yàlla nañ ci gis seen bopp amiin yàlla def topp ba képp ku ñu ci déglu rek seetaan ñu bu ko defee bu fekkee li ñuy wax intéressé na la ñu mën ci dimbali waaw man nag sama cabinet mi ngi nekk Guédiawaye arrêt du Vallès li may tàggatoowee rek bépp jigéen bi nga xamante ni nekk nga en état de grossesse ëmb nga ba pañ sa grossesse bañ a nekk à risque. Mhm. dañ lay may ay ñaan gratuitement. Hmm. loolu du ma ci fayeeku nit. ku ci nekk yaay seet rek symboliquement. Mhm. loo ciy def. Mhm. loo ciy joxe. weexal ngay joxe. ndax jigéen ñu bari léegi dañuy ëmb. mais suñu dee di am accouchement dañuy am traumatisme dañuy tiit. ragal ñu opéré leen. ragal doom ji lu nekk mën na leen dal. seytaane mën na leen topp rab mën na leen topp. bëgg ay ñaan bëgg ay léemaay. te ñu xam sax fan la ñuy dem. kon bépp jigéen bu ëmb mareetu bépp jigéen bu ëmb ci Sénégal. boo ñëwee kër sëñ Bara Fall daañ la may ay ñaan ci alxuraan ci turu yàlla mhm. daañ la bindal Faatiya Falaqi Naasi surtout Yaasin amana rasul mhm. loolu maa ko defal bépp jigéen ci Sénégal doo fay dërëm mhm. ma may la ay ñaan gratuitement may la ay ñaanu jigéenu bu nga te ni pour mucc ci jàmm am doom ci jàmm ak salaam boo ragaloon opération sax yàlla dana dimbale kenn du la opéré incha ndax am na opération ñu ko bëgg ndax bëgg nañu accouchement sans risque utile kon bépp jigéen bi xamante ni ëmb nga rek bañ am jafe-jafe ñëwal ma may la ay ñaan te doo ci fay dërëm. Mm-hmm. loo am joxe loo amul bàyyi. wallaahi te alxuraan lay doon turu yàlla lay doon. bu leer dana am loo sangoo dana am loo suuroo ndax am na yoo xam ñu ragal jënne ragal seytaane ragal cat. seen ëmb cat leen di topp. dañ am na ñoo xam te ni ëmb bu ñu ëmb accouchement rek doom bi dellu. Mm-hmm, dañ am na mm-hmm. ñoo xam te dañ ko ragal. ndeysaan bu ñu ëmbee du ñu am ñaan. du ñu am gàllaaj amatuñu ndey buy dund. amatuñu baay buy dund. amatuñu ku leen demal. xamuñu kenn te wóoluwuñu kenn. ndeysaan te yàlla ubbiwul leen bunt Mhm. kon nag c'est le moment naka ñëpp noté maa ngi koy mhm. ñaan sénégalais yëpp nañ ko ñëpp jël bépp jigéen bu ëmb mhm. na ñëw kër sëñ Bara ñu may la ay ñaan te doo ci fay dërëm macha allah wala nga woote rek numéro baa ngu 77 Euh, si 169 45 45 mu ngi noonu 169 45 45 wala 160 93 93 nga woo jokkoo ak sëñ Lamine Bara Fall wala nga dem ba arrêt du balees boo laajtee cabinet ba danañ la ko wan macha allah sëñ Lamine kontaan nañ tey moom li nga leen jox moom ah, ah, sëri ca mënu koo weesu macha allah. <laughs> soxna Maret ñu bàyyi la nga tàggatoo waxtu wi mat na sëkk. waaw soxna Diarra kontaan nañ trop nag. parce mm-hmm. que dañu def émission Linguère tudde ko émission jigéen. Mm-hmm. kon bu ñu amee ku toog fii di wax baax na. Mm-hmm. xamit fu ñuy jaar ba mën a faj it tubaab fakàlla macha allah. Mm-hmm. mais tey nag am nañ kontaante. Mm-hmm. ku toog suñu émission bi ne bu leen lii dalee. ñëw mm-hmm. leen ma may leen garab ah man de kontaan naa ci. kontaan naa ci trop mais mu waxit lu am solo maam jaara rek. mu dem ñu yóbbu parce que jigéen ji nga xam ne ni parce que wax nañ ko léegi nee nañ 35 ans boo tubaab bi li ñu wax boo ëmbee risque la. mais jigéen ji nga xam ne dafa ñëw nga faj ko à l'âge de 35 ans 40 ba mu ëmb. kookit yaakaar naa da ngay ànd ak moom topp ko ba suñu borom di ko defal jàmm mm-hmm. traitement yi day continuer mm-hmm. waaw ko jigéen bi xam te ne dafa taw am doom dañ la ci jox garab soo amee doom it dañ lay topp ba keroog sa doom di judd ba para may la ay ñaan pour sa doom mm-hmm. kon macha daf ciy kon jaara mi ngi li nga waxee rek léegi li ngeen mm-hmm. moom dafa am ay soppeeku ndax buñ toogee at mm-hmm. di leen defal ay émission lii yëpp ñun waxtaan nañ si kon buñ demee ba at bi mat suñu deux ans war nañ leen tegal koo xam ne nii lu ñu waxtaane woon rek buñ ko indiwaatee daf ñuy fajal jàngoro boobu kon jërëjëf mi ngi noonu ba soxna Ndeye Diop ñu jox la dig daje waaw soxna Jaara maa ngi am kontaan di nag suñu sëñ Lamine Fall. Mm-hmm. ndax fi ne émission bi moom riche na trop kontaan mm-hmm. nañ te xam naa ne moom téléspectateurs yi moom dañ ci jàng am jëlee bénéfice. Mm-hmm. parce que lii moom yombul. promotion ci faj yombul. te sëñ lamin nee na ku ñëw mu su jigéen boo wërul boo ñëwee mu suivre la kooku moom ñëpp. dégg nañ waaw may la ñaan. waaw suivre rek may la ñaan. Mhm. ñuy sant yàlla bu baax gratuitement voilà ñuy sant yàlla bu baax waaw di ko remercier nag di wax téléspectateurs yi ba beneen jeudi incha allah. incha allah ñu génn ci thème bu gën a neex. ma ca bàjjen. Mhm. Mhm. posé na ko question yu bari waaye yaakaar naa ne répondre na ci. te loolu moo li nga xam ne ni moo am solo ndax am na ñoo xam ne ni comme jotiwul ci. ñun ñoo leen fi toogal wallaay yi nga xam ne ñoom loolu la ñu waroon a posé ñun moom lañ di posé sëñ Lamine. Mm-hmm. indil na ci ay tontu mm-hmm. kon sant yàlla la. kon di leen jox dig daje beneen jeudi incha allah. wallaahi mu ngi noonu kon ñu kontaanoon bu baax a baax àndoon ak yéen euh, ànd ak sëñ euh, Lamine Bara Fall euh, ci li nga xamante ne bii moom lañ doon waxtaane tey muy ñàkk am doom ñàkk am doom nag laal nañ ci ñaari côté yëpp soit muy ku jigéen ki soit muy ku góor ki xam naa ne jafe na nag fu muy faral di doonee ñoom ñoom ñoom ñaar ñëpp moom mais du ñàkk kenn koo xamante ne bii loolu dafay daal di am si seen diggante sëñ Lamine ànd na ci ay leeral yu bëree bëri képp koo xamante ni nag waxtu wi. yaa ngi seetaan wala nga nga koy seetaan am sax xarit wala sa mbokk moo xamante ne lu ne mel dal na ko gaawal gaaw jël numéro bi jox ko ko muy 77 169 45 45 77 160 93 93 nga jox ko ki nga xamante ni ak moom mooy euh, sëñ Lamine Bara Fall wala nga dox ba arrêt du balees nga laajte cabinet sëñ Lamine Bara Fall boo ko ci woowee wala nga déggoog moom ci whatsapp bi ku ko woo jotoo ko nii tam mën nga ko bàyyil message ci whatsapp bi ngeen daal di waxtaan incha allah suñu borom defal leen ci tawféex muy noonu sëñ Lamine kon dañuy bàyyi ba alxames bii di ñëw incha allah ñu andiwaat beneen thème boo gën a amal euh, solo askan wi ñu ngi leen di jox digg daje di jaajëfal moom Momar moo nekkoon ci régie bi ak euh, Madien dem ba studio ba Basirou Ndiaye moo fa nekkoon ak ki nga def <laughs> régie ak ki nga xamante ni bi moom moo di Ousmane ah ñoom ñoo nekkoon foofu ak Mouhamed di leen jox dig daje ba alxames bii di ñëw di leen wax jigéen ñëpp ay lingeer lañ. Jigen bu dee say ci kër tay bëgg say badi neex nay muñ te sax ci ndigal tay tonto tonto lu neex tey fuuta kay togg kay re jigen bu say ci kër tay bëgg say badi neex nay muñ te sax ci ndigal tay tonto tonto lu neex jigen bu say ci kër tay bëgg